yoneen nga yoneen nga yoneen nga yoneen nga baay laay yoneen laay laay la la yoneen nga yoneen nga yoneen nga yoneen lay lay seyda seydina Limaamu Laay yoneen la aj boo daaya laay du wax joo xam ne mindeef mu jóg wax ko ku koo xam ne yàlla ka wax loo ndaxte wax kawaat la bu wérante waat wu jëm fa yàlla ginnaaw rasuululaay déggu leen fi koo xam ni taxaw na wax ni yàlla moo ma yónni